Euh, di bés cloche bi ngir ngeen di mën a jot seen i notification euh, ci lépp loo xamante ni nii rek Tawfekh mu ngi koy liggéey rawatina ci lu jëm ci wàllu information euh, tey nag àdduna bi yëpp ñoo bokk li ñuy waxtaanee lan la ñuy waxtaanee mooy diggante Sénégal ak Angleterre mu nekk match boo xam ni démb la doxoon ci seen diggante mbokk yi Angleterre démb dóor na Sénégal ah, li jaaxal àdduna li jaaxal ñëpp mooy sëriñ si nga xamante ni nii du ñu jóge ci wax du ñu jóge ci naan nangami bi lii mooy am lee mooy am Sénégal mooy dóor jox leen ma lii jox leen ma nangam bi ku nekk di def say pronostic rawatina nag sëriñ si nga xamante ni nii euh, ñoom maanaam euh, dañuy wax ba wax la ne la tey jii kat équipe bi dafay football waaye day dugal nangami bit wala sax équipe bi day gagné mu bari ci nag ñu bari ñoo xamante ni nii euh, waxoon nañu ni Sénégal day dóor Angleterre waaw ndax euh, fii Sénégal la te euh, dara du fi umpe rawatina nag ñi nga xam ni dañoo taxawoon ci internet bi wax flagramment xam le ni Sénégal dafay dóor Angleterre yàlla weddi na Angleterre dóor na Sénégal de 3 buts à 0 donc nag mu nekk loo xamante ni nii comme li Sénégalais yëpp di wax rek football bi sëriñ si dañ cee war a génnee seen loxo sëriñ si dañ cee war a noppi bu fekkente ni nii ñoom ay hémorroïdes lañuy ñuy faj ak yu ni mel ñu dem faji ko te bàyyi football bi waxuma ko sénégalais yee ko wax léegi léegi lañuy ñuy lay doon ci Tawfekh TV ngeen ànd ak DJ Papis le maître des ambianceurs waaye tamit ànd ak sama caméraman euh, tarkalla ñu daal di dem xuus jëli ji réaction sénégalais yi wan leen ni leen. sénégalais yi kontaanuñu ci sëriñ si déedéet kontaanuñu ci benn yoon dañuy dem wutali kenn ci ñoom waxtaan ak ñoom xool nan la ko sénégalais yi gisee ak lan la ñuy wax ci sëriñ si mbokk yi comme ni ma leen ko waxee léegi rek ci ndorteel continuer leen di abonné ci sunu site internet muy Tawfekh TV waaye tamit di leen bës cloche bi ndax loolee mooy tax ngeen mën a am lépp loo xamante ni ni Tawfekh mu ngi xëy ci di ko joxe ngeen mën ko am à chaud kon gars damay ànd ak sama kameraman, xuus dugg ci sénégalais yi daal di fas yéene waxtaan ak ñoom ñu wax ñu nan la ñu gisee réaction sëriñ ngi ci rond point angle sëñ Fallou Thiès ay ca kon bu ko defee ñu dem. pour kaaw problème mu sëriñ si ngay wax nag. kooku dafa am benn côté boo xam la am côté ni sénégalais yi la engagé. parce que man lima ma gis ci équipe nationale Sénégal. Mm-hmm. franchement muy seen match yu njëkk ak euh, match yu man gisuma ci dara dara loo xam ne sëriñ moo ko may man li ma gis lépp lépp lépp lépp selon man su ma gis su àddina li mu am yëpp mérite la lu mu am ci terrain gisuma ci benn complément boo xam ne sëriñ moo ko may léegi nag loolu mi ngi des ci problème mu fédération fédération bu fekkee ne que ñoom leer na leen ni sëriñ sii ñuy wax ni que ñu ngi ànd ak équipe bi amal na leen njëriñ ah ñoom xam nañ ci dara mais man personnellement ak ñu bëri ci Sénégalais yi gisuñu sëriñ ci Euh, est-ce que yaakaar comme ñi nga xamante ni nii tey dañuy jóg di def ay vidéo mhm. jékki-jékki def sa vidéo dugal ko ci internet bi ne tey man maa yor bit yi Sénégal day dugal te yow doo yàlla te loolee ndax day mujjee nekk ay wax yoo xam ne teguwul fenn yow ñooñu nan nga gisee seen i seen seen affaire ñoom mais euh, limité leen arrêté leen man loolu laa gis parce que problème bi mooy comme li ma la wax léegi ci biir wax dama ne la gisuma ci équipe bi lenn loo xam ne complément wul sëriñ am na ci mhm. kon bu fekkee ne que sénégalais yi quatre vingt quinze pour cent gisuñu ni ñooñu li ñuy wax dëgg la. ñi leen di diglu ak ñooñu ñoo yem. comme la wala ak ñi leen di confier ci affaire boobu ñoo ak ñooñu ñoo yem. Sénégal gëmuñu man gëwuma loolu. man li ma gëm ba gëm ko franchement li ma gis. mooy équipe bi lépp lu mu am sur le terrain da ko mérito parce que moom moo ko defal boppam kon sëriñ defalu ko dara. ñetti bit yi am démb yëpp man ni ma ko analyser ak ni ma ko xoolee. Mhm. mooy bit benn bit bu njëkk bi bitu sëriñ si la ndax ñoom ñoo tax bit boobu dugg ndax ñoom dañoo jàpp ni ñoom bu dul ñoom dara du xew beneen bi ci bokk ñi nga xamante ni si ñooy analyser di wax te ñi nga xam ñooy analyser di wax tamit euh, am nañu raison ci benn côté mais am na ci loo xamante ni si tamit ñoom munuñu koo pronostiquer ndax affaire football ku ne xam na ni ñun suñu gaynde yi ñu yor ak suñu lion yooyu ay jàmbaar lañu ndax képp ku fi indi Coupe d'Afrique xam nga kooku am na lu mu man dégg nga analyse bi ñu doon def ak yooyu yëpp loolu dëgg la mais yàlla moom moo dogal yow mbaa mbir mi ñu bari dañoo jël mbirum yàlla teg ko nële waaw te yàlla da cee am solo ci mbir mi li ñu waroon a def mooy ñaanal équipe bi ak góor góorgóorlu mais dafa bari ay yu bari ci am yoo xam ne sëriñ si ci dëkk bi sax am na ñoo xam ne mën nañoo xeex équipe bi bañ dóor ko te yooyu yëpp li ko waral mooy seen intérêt personnel kese waaw ah, mais ñun sunu gaynde yi tubaarkàlla jàmbaar la démb nag li ci xew mooy dañoo dajeeg équipe boo xamante ni si moo moo ni mu taxawee dafa ëpp daal. Mhm. dañoo ëpp doole ndax kenn ku ne war ngaa xam tamit ki la man mhm. mais Angleterre moo nu man kon daal su ma la dégloo bu baax euh, sëriñ si nga xam ni ñu ngi ci di wax di joxe seeni euh, but naan nangami bii la ñuy dugal ñoom euh, maanaam xam nañ ci dara ñooñu dara buñ ca xamoon dara kon équipe bi duñu wut duñu wut entreneur duñu former ay ay lion pour équipe bi kon bu baax dañuy xaar ma football jot rek ñu daal wut juróom fukk ak ñaar dugal leen ci terrain bi ñu sëriñ yi defar leen waaw loolee wane ñoom mënuñu dara waaw ñoom ñi ca biir ñoo doon football ay jàmbaar lañu man noonu laa gisee mbir mi waaw man gëwuma affaire sëriñ sëriñ soosu waaw ndax loolu seen intérêt bopp rek lañ ca lal noonu noonu pour am dara parce que tamit bu doon serigne ci ñoy tax équipe yi jël coupe kon ay Mali ak ay nigeria kenn ëpp leen serigne ak ay Guinée affaire bi football la dem dañ ñoo mën gagné ñu nañu gëm yalla mais serigne ci tamit dañ leen wara freiner parce que trop c'est trop du ne fi di naan jël suñu lepp bu ko wër ci ay serigne loolu tamit mënut ta nek am ñaan yalla nak ñu ñaan yalla yalla may dara ci suñu équipe mais ay engagé wu naan mën na indi coupe wala nangam ak sangam man yoy anduma ci tay anduma ci suba waaye ànduma ci tey ànduma ci suuf franchement parler li li ci sëriñ ci wax yëpp dégg ngeen ko. te dara amu ci. dara amu ci kon lii war nañoo yee. bu ëllëgee ñu xam fi ñuy taxaw du dëgg. waaw bu doon sëriñ si ko bi waaw ni nguur gi tey war nañ ci mën a dugal seen loxo. arrêté nga xam ne dañuy wax ñu tere leen sax nag wax bi. waaw loolu moom bu ñu ko mënoon am ñun moo ñu gënal xam ndax mën nañ ko am nag. Mhm. bu ñu ko mënoon am franchement parler moo ñu gënal. Mhm. parce que tamit mënuñoo jël suñu yëpp di ko teg ci ay sëriñ. Mhm. loolu tamit sëriñ si d'accord influence la surtout sëriñ yenn yi yëpp xam nañ ni mu demee nit ki da ngay na da ngay xaar bañ na lay defal ñu mais ma wara def nangam loolu amul fenn manam xam nga problème mu internet yeeg yooyu dafa doon fond de commerce bo xamanteni ku ci nekk man nga ci wane sa bop ñenn ñi dañ ci jublu siiw pour en cas bu joggé ci li ñaneen ñi yi nga xamanteni football ñu sax ñew di leen laaj seen xalaat ak seen lool bu ko defé ñu da ko fond de commerce bo xam ci lañu wuté xaaliss waaye day am loo xamante ni maanaam man sëriñ xaj na am na lu mu man sax waaw ndax sëriñ moom duñ ko wet ndax ñaan am na fi Sénégal réewu ñaan la pays réew la moo xamante ni ñaan xam na fi te am na suñu réalité waaye daal bi mbirum football moom góor góorgóorlu daal ba def euh, euh, la la ngay def nga man ko bu baax ka nga xamante ni man tam moom moom moom ngeen koy defal muy réew ma ngeen séq ñooñu tam am euh, taxawaay boo xamante ni moom lañ ci taxaw mooy engagement bu mag sëkk bu ko defee loolu dina dool loolu doole ndax njàmbaar jàmbaar dañ koy kañ jàmbaar lañ koy xagn euh wax ko li nga xamanteni manam moy euh, li nga xamanteni mom lañu xam muy euh, suñu mam yi li ñu euh bu ko defé loolu dina leen dolli dolé dolli leen endurance ah, tax ñu gëna gor gor wa mbir sëriñ nak xaj na am nañu xamanteni xamante ni xaj na mën nañoo gis dara wax ko waye dal li ci ëpp mom bëss dong lañu wut loolu ñu naa bës daal moo ci ëpp dal ak fond de commerce bo xamanteni manam ci lañuy ci ci la dund rek ngir bëgg ëlëk bu ëlëgé ñu leen di wanaan xolal ma fi ak sétal ma fi sétal ma paa loolu daal laa ci loolu daal laa jàpp ne am na ci moom bu baax a baax waaw kay dañoo bëgg a jël jikko yu bon yi ba kaa yëkkati ci kaw ba suul jikko yu baax yi mhm. ndax boo xoolee léegi foo maraabu yi dañoo bari maraabu yoo xam ne dañuy toog seen saal woo site internet yi fay leen xaalis ñu ñëw ñu tasaare leen ci réew mi ñu naan mën naa lii mën naa lii bëgg a toog séesu yàlla te yàlla kenn du toog séesam Fall gis nga dama lay wax loo xamante ni des fois suñu borom day def dara wax yi mën naa tax suñu borom wëlbati loolu te bo xolé mara yi legui dañu bëgg jël séesu yalla bi toog ko ndax yalla kenn du weeri waxam barki Serigne Sall da ngay gis ko xamne day teud guddi yalla won ko lu leer mais télé yamay tok di weer yalla nan yalla won na ma li motax yalla du lam naron du ko def ndax bu boba yalla dina dina dina dem ba mujju gi mom dina bàkku sax ne ma yalla te yalla kenn du doxé ni mom kenn melut ni mom sakul kenn ngir mu tok nan man kat sun borom won na ma li sun borom bu lay won dalay am lo xamne fotum bir la kenn du ko wone ci pench foddum biir na kenn kenn du ko génn ci pénc te léegi maara foo maaraabu yi dañoo bari ci réew mi dafa jot nag ñu interpellé état mu jug ci lii ndax kat boo xoolee sunu papa yi ak suñu mag yi nga xam ne ñu ngi Europe dañoo sonn ngir mara yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal nekk ay faux marabu nekk di dem nekk nit nekk Europe naan la yónnee ma lii ma defalal la lii yónnee ma lii léegi dangay xool sax léegi da ngay toog booy naan la man courtier mara lan mooy courtier mara ah ci réew moo xamante ni tey ñu war a ñaan yàlla bi nga xam ne mooy ñaan moom mooy maye ñaan sëriñ si mu sëriñ Touba ma alaaji Malick maam Limaamu Laay maam Kunta ñooñu la ñu war a ñaan mais waru ñoo toog fii di xalaat ay faux marabu yi tey xoolal Sénégal ñaata nit ñoo fen ci ma Sénégal bi barki Serigne Saliou man li tax man na woon Yaya Jammeh lii nii bu doon jamono Yaya Jammeh la ñu def ko Gambie ñoom ñëpp lay dajale boole leen ci benn biir benn nekk ndax tey dafa jot Macky Sall jël ci ay matuwaayam billaahi wallaahi taala ndax réew mi mi ngi yàqu te ñi ngi koy xool mi ngi dem ci gaal goo xamante ni bis buñ ci teel te jug barki Serigne Saliou Mbacke dina nekk réew moo xam ne ku nekk di nga gàddu li nga yoroon daw ndax kat mara yi nii li ñuy wax gëmuñu ko di di fowee arxuraan di fowee yàlla di fowee yonent bi te li ñuy wax yëpp dara du ci dëgg te loolu dafa naqari ñi xam dara du ñu wane ci télé yi di ko bàkkoo yàlla ay mbiram kenn du ko wér ci pénc nañ ko waxaat waxati ko nanu bàyyi mara ñiy def xel ñii sax duñ ay mara ay foo mara bu lan ndax bu nee maaraa rek dañuy yóbbaale ñëpp mais ñi ay foo marabu lan ñëpp a ci yam nag yow yow yow yow yow nga ne yàlla nga yaakaar dama ciy gis koo xam ne nee na sëñ Fallou la yaakaar di tour deret te sëñ Fallou kenn mosul gis ñaanam muy tour deret di rend ay mala di rend ay ay loo xamante ni maa la day taali nga ne maaraa nga ah di di wax sëñ Fallou di takk ay njël gis naa ci benn soxna soo xam ne moom li ma li ma gën a naqari mooy sama yaakaar gi muy takk di Serigne Saliou soxna soosu noonu ah ñu ñu muy muy waatooy Serigne Saliou di bàkkoo Serigne Saliou di di di ndamoo Serigne di toog ci ay jataay di wax loo xam ne du dëgg taalibeb Serigne Saliou warul di toog bay bay bay ñii ñi di dégg ay kàddoom ma laa muy wax loo xam ne du dëgg Serigne Saliou yarut kuy wax lu du dëgg kon nanu bàyyi waat Serigne si nanu nanu nanu nanu sant yàlla fii lu waay bëgg a ñaan na wéet julli ñaan ko yàlla yàlla may la ko fii loo bàyyi ba xaaju guddi jot barki Serigne Saliou nga ñaan ko borom mu defal kon nanu bàyyi faux marabout yi nga xam ne dañu leen di teg mékara rawatina nag yenn site internet yi nga xam ne ñoom dañu leen di fay ñuy toog ci ci di ci ci mara yi di leen may bës di leen di leen génne loolu nanu ko bàyyi nanu defar réew mi nanu xool suñu doom yi nanu xool suñu rakk yi nanu xool suñu mag yi nga xam ne ñu ngi Europe di liggéey bay bëgg dee mara yi ko lekk wër na Serigne am na ci lu ñu naqari wër na Serigne Touba lu ñaaw la mais nag ñi leen gën a dooleel mooy réseaux sociaux yi ñoom ñoo leen dooleel vraiment parce que am na ñoo xamante ni jaruñoo sax dégg micro vraiment man ci loolu laa gis am na tamit ñoo xamanteni dañuy yàqal sax ñoon buñu ne bëggoon a ñaanal équipe bi sax duñ ko mën a ñaanal parce que ñi nit ñi di wax naan maa mën fii yàlla rek a mën yàlla rek a fi nekkal ñëpp mais tamit xam nga nit mënoo xam ni sax ba xam boo tëddee di nga yeewu te ni da ngaa war a waxirlu ci yàlla di ko ñaan comme ñoom xamuñu sax ba xam bu ñu tëddee ne ñeew bay xam liy xew suba yàlla rek moo xam liy xew suba quoi jullit wala nit ko baax du def loolu nañu sur borom muccal musal ñu ci loolu tamit parce que di wax loo xamante ni maanaam la waaw loolu moom nañ ci suñu borom muccal ba pare surtout ñi ñi nga xamante ne dañuy yor ay micro di ko dégg dafa am ñu ko war a dénk dafa am ñoo xamante ne dañ ko kenn waruñoo wax télé waruñoo wax ci réseaux sociaux yi am na yoo xam ne dañuy nit ñi di yàq ñu ngi yàq Sénégal am na yoo xamante ni dafay yàq Sénégal ku nekk léegi def ci jàngat quoi ci lii xam ne lii day yàq Sénégal vraiment sama waa ji loolu moom war nañ koo mën a bind daal ci dëkk bi nit ñi war nañ mais bu fekkee di football mhm. xam football. xam nga ne ñaari caractère yu équipe yi bokkuñu. ñaari caractère yu équipe yi bokkuñu. bon Angleterre dóor Sénégal nag du du du du gàcce quoi. du gàcce franchement booy am nañu mérite. vraiment li ñu waroon def ci seen mondial yëpp def nañ ko. mais il faut Sénégalais yi xam ne ak équipe bi fii la mën a yem. xam la am nañu mérite franchement équipe bi fii la waroon mën a yem. Euh, kon lan nga leen di conseiller ñoom. Euh, ñu defar xam ni ki leen mun na éliminer n'importe quelle équipe. Mm-hmm. Angleterre. Mm-hmm. mun na éliminer n'importe quelle équipe. Mm-hmm. bon ñun sur le plan euh, sur niveau euh, niveau Afrique. macha allah euh, am nañ ci niveau boo xam ni tey bu fekkan benn équipe africain moo ñu dóor boo xam ni wala bokk ñu ñu Équateur boo ñu dóor. man daal li may wax Sénégal yi pour ñu bàyyi ci xel ak fédération ak ñi nga xam ne ñoo ŋànk football pour ñu bàyyi ci xel. mooy na xam ni Sénégal Équateur bi Sénégal gagné. Sénégal gagné na ko deux fois avant de jouer waat seen troisième match bon équipe Qatar bi nga xam ni moom la Sénégal gagné moo gë bu ñu koy xool faible ci euh, ci tournoi bi donc mooy Sénégal am na affaire avec euh, ak équipe bam defaraat xool ba xam ban niveau lay yóbbu équipe bam ba niveau lay yóbbu équipe bam mais sur le plan international moom vraiment fi ñu yem démb rek foofu la équipe bi mën a jërëjëf vraiment vraiment may féliciter xale yi bu baax. Mhm. di leen encourager di leen ñaanal yàlla ëllëg. bon vraiment yàlla yóbbu leen ci niveau bu gën a kawee bi nu bi nu xalaat. bon vraiment man daal loolu laa ci amoon ci loo xam ne daal franchement mun naa ko ci. jërëjëf football la suñu gañee foo ak ree la bu ñu gañee foo ak ree dong la. Mhm. équipe bi mën nañu nañu nañ defarwaat xool li ñu tax ñu ñu lan la jeex na amul leneen. Mhm. man boog loolu laa yaakaar loolu laa xam man ci football sportif la il faut ñu doon sportif. ñun ñoo war a dégg muñal nañu muñ mhm. ñun déggloo nañ ay nit muñal ñu muñ kon ñun nañu muñ rek mhm. amul benn problème waaw équipe bi 32 la ñu woon ñëpp ñi ba mu des 16 ci 16 yooyu lañ bokk yàlla fi la yemale suñu yoon loo gis daa ko yàlla yemale mais sëriñ si moom ay diw mun naa lii ñaata sëriñ lañu yóbbu ci coupe du lan lañ leen jox ci xaalis bari na mais ñoo ngi nii dañoo ñibbisi mais war nañoo yee pour ëllëg quoi lii def ñoo war a yee waaw ñun ñëpp ay sportif lañ waaw loolu laa amoon ci lu ma ci expliqué ay ca mbokk yeeg xarit yi mbokki internet yi comme ni ñu ko dooree rek tey fële ci angle Serigne Fallou euh, gis ngeen réaction yi nga xamante ni nii moom la sénégalais yi li ñu wax Euh, mu nekk nag ay kàddu yu déggu ñenn ñi nee nañu nañu génne sëriñ si ci football bi nguur gi daf cee war a jël ay matuwaay waaye tamit ñeneen ñi ni ñu ko gisee mooy euh, ñoom daal dañu leen a war a arrêté waratuñu wax donc euh, mu ngi noonu tey ñu nekk fii ci Baye Collection mi nga xam ni moom moo leen di may seen émission bii ñu leen di amal tey ci taw Tawfekh TV Again, ngeen ànd Sen seen mbokk seen Papis Seydi DJ Papis le maître des ambianceurs waaye tamit euh, ànd ceeg moom sama caméraman ak euh, preneur de son et équipe technique bi

kon gars yi mi ngi noonu ak Baye Collection moo leen may émission bii nga xam ni moom mooy noo ko gisee surtout ci li ñu jóge jaa ngeen jëf